bëggal naa leen di nga bëgg a def nice def classe def élégance fii suñu boutique bii di 3D shop di nga fi fekk bépp de grande marque des ensembles de blousons des t-shirts fii la fekk baax foo ko sol ñu daal la xoolaat avec des prix abordables waaw waaw ci njëg yu gën et là 3D shop une boutique de référence 3D Shop mi ngi nekkee fii si Massar jëlal numéro bi 78 547 97 27 78 547 97 27 3D Shop une boutique de référence 3D Shop boutique de world hello hello la mi j'espère que vous allez tous très bien et que lépp cool alors merci et re-bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221 bien sûr la chaîne des news, des plus belles chroniques, la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc, jusqu'à présent, vous vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors gars yi tey nag damay dem walo parce que nak euh, walo deuk la bo a ni bari na ay talent ñi ma fa xam ñuy bari nañ trop sax et ils sont très talentueux moo tay dama choisir wax ci boy bo xamante ni euh, artiste rappeur la dëkk walo et il se tout simplement Djidja dama ñu présenter leen ko et surtout wax ci sound bu mujjé génne intitulé on s'en fout dañ ci wax expliquer et détailler bàyyi leen après euh, yéen tamit ngeen mëna wax sen xalaat ci commentaire yi léegi let's go ñu xoli tout rek sur la vidéo ñëwaat léegi-léegi ay ca now. Du better, du yi gis ngeen tuuti ci euh, vidéo bi et elle est on s'en fout. donc boo seetaanee clip bi rek da ngay am envie dem découvrir yeneen vidéo wam yi wala sax yeneen sawnam yi parce que boo xoolee vidéo bi da ngay gis ni booy bi kat talent baa ngi ci moom talent kese la wallaay il est très flowam nag moom on n'en parle même pas parce que benn la et bi mu yor bu defee tuuti effort rek jëm ko exploiter dinañ ko dégg fu sori et aussi am na loo xamante ni euh, dafa raar ci artiste muy lan muy dafa polyvalent booy bi day rap day way et person li ma neex ci moom mooy nekkul di forcer way bi non da koo mën boo leen xoolee sound bi dafa nekk à ci kaw bit bi en plus wane fi double facette muy way bi ak rap bi non mais je vous jure qu'il est très talentueux en plus j'ai aimé le travail du beatmaker parce que beatmaker bi lu mu job surtout mélodie bi dafa nice ci sound bi clip bi nag guddul mais neex na te clip bi set na wecc am na qualité li ma koy conseiller nag perso ci sama xam-xam bu gàtt mooy talent bi mu yor nii bu mu ko sàgganee bu mu juum sàgganee ko parce que bu góor góorloo tuuti rek def tuuti effort dinañ ko dégg fa sori ci game bi et na ko donc na ko yàlla may na ko talent boo xamante ne nii bu ko exploité dinañ ko dégg fu sori donc na gën a job gën a focus parce que comme j'ai l'habitude de dire duma taaj ci di ko wax boo amee talent te jooboo ça sert à rien du tout du la jariñ dara doo ci am benn revenu donc na jéem a exploité talent am comme ça dina ko permettre ñu dégg ko fu sori donc lii laa leen indiloon tay wax len sen xalaat ci commentaire yi euh, no len gisee boy bi ak tamit lo len koy conseillé no len gisee sa vidéo bi nga xamanteni c'est intitulé on s'en fout et s'il vous plaît ngeen dem abonner sur sa chaîne YouTube sa page Instagram et sur Facebook ngeen may ko nopp tek ko loxo te tamit bay ko xel bu baax bax parce qu'il est très talentueux donc gars n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker Comment sort le je suis sur Instagram sous le nom de Kenza l'officiel Ma page Facebook, bien sûr, Kenza 221. Sur TikTok, Kenza National. Et sur Snapchat, Kenza Diallo. Allez, peace and love. Gros bisous à vous. Restez bien connectés. À la prochaine et Amlen Jam. Bye bye di nga bëgg nice, def nice def classe def élégance ñëwal sur suñu boutique bii 3D shop di nga vêtements de grande marque des ensembles de blousons des t-shirts puis le fekk baax foo ko sol yu la avec des prix abordables wow, wow, ci you yu gën a et là 3D shop une boutique de référence. 3D shop bi ngi nekkee fii si Madické Tambédou Le Massar numéro bi 78 547 97 27 78 547. 27, 97 27. 3D Shop, une boutique de référence. 3D Shop, boutique